gannaaw ba mu jàppale daara yi waaye jàppale ñi nga xam ne ñooy jàngkatu xasida yi ak yenn ci ay kilifa yu bokk ci APR Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma jox na ndimbal jeunes yi bokk ci APR moo xam waa COJER waa maire ak jeune dame yi. tey nag mu woowoon ndawi parti yi ñi nga xam ne ñoom lañuy wax COJER seen njiit di Bassirou Mbuub mu ànd ak ñi nga xam ne ñooy kilifa parti bi fii lii nag nekkul ci ñii la ko njëkkee. magi parti bi jox na leen jigéenu parti bi jox na leen jàppale na ay kuréel yu ci mel ni Touba ca kanam mu ni woon nag day mujjee njabootu politique am am na ñu fi jaar tey ci suba ay individualité yoo xam ne jox na leen kon tey remise bii ñuy def muy remise symbolique euh, defe naa ni COJER lañ koy def lañ koy jox. gis nañ aussi initiative bi mu amoon ku ne xam na ne dongo daara ci Touba lu fi amam solo la daara yu mag yoo xamante ne si xam nañ ne période bii jafe la ci ñoom. mu initier programme bu ñu tuddee Yacoub Soxna May dem ci daar yi di leen yóot ay reer ba yàlla dogal ñu déplacer heure couvre-feu bi kon loolu tamit ndimbal la loo xamante ne loo am am solo la te li ci gën a rafet mooy su ko tàmbale woon ci ñi nga xam ne ñoom lay àndal politique dañ naan politique dong la waaye gëm nañ ne dëkk bi moo ko ñor askan wi moo ko ñor te jëf yu mel nii ak moment bi nga koy defee tamit da ciy am solo ndax bu jafe-jafe amee nga génn président de la république moo njaboote ñëpp waaye ku ko wuutu ci askan wi tamit jàpp naa ne jëf ju am am solo nga def. kon dafay mel ne bu ma la gisee ci lii du hasard ndax kër gi ko xam-xam ne social la ci Touba ke soxna May Mouta Mbacke Xaadim Rasul nun ñëpp fii lañ jànge mbooloo te laylatu xadar yu bare bëri nuy lu tuuti di fi ñëw di fi fekk taranga kon bu réew tolloo fii bañ mën a fomm bisam bi nga xamante ni si dafa impliqué ci ñun murid yi muy bis ne góor taxaw na ñu koy tudde góor yàlla fàkk am pénc dajale mbooloo te mënta am bis bu toll noonu buñ ko fàkkee rek am na lu tax loolee nag du jàmm yàlla nañ ci yàlla musal képp ku naan amut man damay jàpp ne da ngaa yurutum xel wala da ngay gone wala boog na ngaa jëbutut sëñ Fallou Mbacke suñu maam ji baax ji daan na ko wax di sëñ bi ne balaa mi ngi ci bu lay gone rombee sax rëddu seen rëdd nag mag mu ci jaar dee soo ko mënee teggi teggi ko te naan gone yi waxuñ dëgg moo gën bañ koo jànkante kon dañ ne am na am na ak xamut wump nanu loolu ndimbalul sëriñ bi la waaye nan gëm ne nun wattoonu ti wat ñu di ko def mooy depuis pandémie bi ba léegi lépp lu mu def mu commencé ko ci bu madaar yi ak saabu yi lépp lu mu ci def dañuy lii may def dama koy def ndax Sëriñ Tuuba kon dañ koy dañ koy ñaanal euh, xam nga ku jël indemnité yi mu am ci commune Touba ak carburant jël ko def ko ci xeex bi jël ceeb bu bëri séddale ko te lépp lu mu ci def mu ni Sëriñ Tuuba moo tax ma di ko def kon dañ koy ñaanal ndax suñu diggante ñun ak moom ñun étudiants yi Touba ak ministre Cheikh Abdou Bali dafa yàgg ndax dafa commencé bu yàgg ba léegi bu ma fàttali ko en 2013 appartement bi étudiants yi dëkkoon moom moo doon ko fay di ñu accompagner depuis lors maa ngi ko également bi ñu fi demee tribunal étudiants yi nga xam ne dañ leen waroon a génne moom moo jëloon xaalisam fay ko. jàppale na aussi mag ñi nga xam ne dañoo yàgg ci parti bi yàgg a sonal président Macky Sall jàppale jigéen ñi tey jii mu ne day woo ndaw yi pour jàppale leen loolu nag moo tax dafa am kuréel goo xam ne moom la ñuy wax COJER moom mi nga xam ne kuréel googu mooy jàppale parti bi di jàppale président Macky Sall tey euh, tey monsieur le ministre Abdou Bali woo leen ne de len di jappalé soutenir len comme nim ko defalee ñep ba axe ci mom kon sëriñ bi ñu ngi lay sante di la gërëm di sante aussi sa taxawaay di rafetlu aussi depuis nga jël sa loxo duggal ko ci parmi né da ngay jappalé président Macky Sall ba légui da ngay gëna duggal rek waye musso arrière. sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacké ministre def nako ci turu COJER convergence des jeunes républicains di ndawu parti bi tay dañ fee ñew wuy ci fi ci turu COJER Touba. sëñ bi am appui bu am solo comme ni ngeen ma ko waxee mu def ko def ko jox ko ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi di jàppale président de la république ku nekk xam na ni fi réew mi toll soxla nañ ko yittewoo nañ ko ñi ngi koy rafetlu di ko ñaanal di ko wax ne jërëjëf. ubbi tëb bi nu jàpp ko ci ñaari fan ci weeru juin bii nu dëgmal Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma wax nekkoon du fàtte mukk école privée Serigne Cheikh bi nga xam ne bi muy nekk tout tànk foofee la dooralam njàngam.

bay mën a jariñ keneen euh, foog naa ne loolee nag sëñ Cheikh jëmmatoon mm. tey jii bari na ay meññeef yoo xam ne jóge na ci seen école bi li muy tuuti tuuti mm. ay prof université joge na fi ah, ay directeur jóge na fi mm. ay ambassadeur jóge fi ah, ba tey jii ministre génne na fi ah, kon foog naa ne barke bi nga xam ne moo taxoon sëñ Cheikh def ko moom am na ko kon nag ñi nga xam ne xam ne ñoo toll ci jàng rek ñoom lay del di leen gën a ñaax ne leen nañu fonk jàng yéen nag kenn amul seen fay vraiment kenn amul seen fay ndax bari na ñoo xam ne jàng nañ ci dëkk bii mën naa ne ñëpp seen loxo lañ jaar dina yóbbal suñu nuyoo ci Badara ah, moom mi nga xam ne moo nekkoon directeur mm-hmm. foog naa Cheikh Mbacke mi ngi gis naa ko moom mi moom mi moom mi moom man ak moom ñu bokk benn classe voilà ñu bokk benn classe en lii mm-hmm. eh, am naa ci mbégte mm-hmm. am naa ci fierté mën naa wax ne lu ma lu ma mos a joxe rek maanaam lii mo ci li ma ci gënal ah, ci la bokk <laughs> ci la ci la ci ci la bokk parce que xale bu ñu leen jàngi la day itam dafa am di war a gunge war leen accompagner ba bu ñu dikkee danañ mën a jàng dans de très bonnes conditions. nu wóolare di sunu sëriñ di xoo xam ne jaar na ci daara ji doon ñu jëf jëf ju mel ni nga xam ne pour dimbali ñu ci ouverture bi pour xale yi nekk dans de bonnes conditions ñu am ay ñu am fi ay masques am fi ay gel ak matériel bi nga xam ne danañ ko mën a jit danañ mën a régler suñu dispositif dispositif sanitaire bi danañ ko mën a régler ak xale yi.